yonent yàlla Moussa Firawna Qaaruna Saamil yi bi nga xam ne moo tabaxoon yëpp wurus bi fexe ba jur banu Israël jaamu ko bu bëggee jaar ci ni mu def ba yëkk wi mën a naññ di wax ba ñu defee ne yàlla la di ko jaamu day gudd Saamil yi moomu kon moom it bokk ci yoo nooni Moussa yu mag yi di waj ibnu Anaq sàmm dafa gudd Moussa nga xam ne noonu bu mu noppi ci moom rek beneen noonu taxaw di yàq li muy jëf ba tax na daanaka xibaaru Moussa moo fees alquran ba ñu naan kaana alquranu an yakuna musawiyan daanaka alquran Moussa rek la. xam ne suñu borom bu doon nit da nga naan Moussa rek ko sax alquran li mu ci nekk li ci mbiri Moussa nettali ko ci mbiri kenn. xaaroona mi xaaroona doomu tàntey Moussa la woon dafa nekkoon ku bari alal lool te Moussa ko daan ñaanal amul woon dara. ñu ko Moussa santee génne asaka mu seet asaka ji mu bari mu ñëñ it wala ba ci ko nag def Moussa noon di ko fexeel pexe yu ñaaw yu nekk benn bis mu fekk jenn jigéen yoo xam ne dafa ëmb te amul borom kër mu jox ko ci wurus ak xaalis lu tax mu nangu ci kanamu mbooloo xam leneen Moussa mooy bi nga def loolu mu dal di jekk bis boo xam ne Moussa ngi waare nit ñi gën a bari lool mu yebal ku laaj Moussa ne ko waaw nit bu moyee yàlla liñ ko war a def mu ne xanaa ñu rey ko mu ne ak ku mu doon Moussa ne waaw waaw mu ne ba yow sax bu ko defoon dañ laa war a rey Moussa ne waaw waaw dal di woo jigéen damu génn ñu dal di koy laaj lii ana ku ko waral mu dal di ne Moussa muy taxawaay bu doy waa kuy woote jëme ci yàlla te sax pexe moo xam ne bëgg la waa adduna bépp xeeb ko waa adduna bépp bañ ko waa adduna bépp teg ko nit koo xam ne ku dëng nga te li muy woote dara jublu ci moom te Moussa yéen bi ko yàlla yéen di lu diis ci moom ba doy ko doom jooju ci biir yaay ji wax na ci ñi ñu xam ne nee ñu wax nañu ñu wax ci biir ci gëstu ak kooku nga xam ne wax ci biiru yaayam nga xam ne Seydina Jibril wàcc na ci xew-xew boobu fas yatam wi ne ko ruf ruf ci bopp liir boobu nga xam ne ji doogul laaj ko kan moo ko jur mu tudd ci nga xam ne du Moussa jamono yooyu nag Moussa seetle kii ana lana ko war a fay lu yoon wax ci moom dellu ci boromam suñu borom ni ko moom loo naa la mbiram lu la soob rek mën nga koo def yonte yàlla Moussa ne suuf wannal xaaroona xam ne bu ko wann loo xaaroona rek te alal ji des ci ñu ñaaw njot ñi ñu ñaaw lamiñ daañu ne Moussa dafa bëggoon a jël alal ji rek moo tax mu alal xaaroona Moussa ne suuf booleel alal ji ak Haaruna yëpp wan na nga xam ne suuf si ne na ko tërif ba ci ndiggam mu daal ne Moussa ahis nii Moussa xettali ma dimbali ma sama mbokk mi Moussa bañ daal ne suuf wannal suuf wan na ko ba ci mbagg yi mu dellu ne Moussa ahis nii yaa Moussa ahis nii Moussa xettali ma ay Moussa dimbali ma yërëm ma Moussa ne suuf wannal suuf wan ba ci sikkim bi mu dellu di xettaliku Moussa ne wannal wann ko ba mu daj dañu booba ba suñu jon yàlla tey gis bu suuf xëyee rek wann suñu borom wal bëtiku ci Moussa ne ko Moussa ana sa yërmande man de bu fekkoonte ne man la ñaan xettal kon danaa ko xettali ana yërmande ji nga am suñu borom yedd Moussa gis ngeen ni Moussa alayhi salaatu wasalaam bi ko suñu borom nattoo bi mu dóoree waaja mu dee te ñu bëgg koo jàpp fitnaal ko am ku ñëw laa biire ko ne ko yow kat la ñuy fexee jàpp ñu ngi wax ne nit ka yaa ko reyoon bërki démb kon nag buñ la jàppee dañ lay rey mu daal di génne misra jëm Madiyana nag xam ngeen ne yoon wi lim ci daj coono yooyu muy daj yépp ngir suñu boroom def àdduna soof ko ba dootu bëgg dara lu dul lu nekkul ci àdduna te xajul ci àdduna muy yàlla bi mu àggee ci yontu yàlla Shuaybu xam ngeen ne sàmmal na ko fukki at ci lenn ci wax yi loolu lépp ci tumuranke ak suñu borom di ko naqaral ngir mu bañ a aj xolam ci àdduna ni muy def xaritam yépp
moom dafay laaj ne sooy bu bi nga xamee ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam ñëw na ci moom nee na te ñu waxaale daf ko wax ne ko nga sàmmal ma juróom ñetti at soo ko matalee fukk nag
waaw Moussa alayhi salaatu wasalaam ne bi mu ñëwee Madiana ci yonent yàlla sooy fekk mu jóge Misra ci bañ koy waajee rey kenn yónneegu ko kenn yónneegu ko waaye yonent xam nga ni maasum la ci lu jiitu nubuwa gi ak bu nubuwa gi ñëwee
Moussa alayhi salaatu wasalaam ba mu fekkee ñaari doomi yonent yàlla bi koy xista boobu ñëw na ci alxuraan soxlawul ñu di ci jaar ndax kenn ci ñoom ñaar moo ko moo proposé bàyyam sooy bu mu may ko Moussa léegi nag ki nga xam ne moo mooy maye soxna wala soxna si ci boppam sañ na ne boo mayee nangam ñu sëy ki nga xam ne mooy kilifa gi nag moom it bu ne nangam ko yonte yàlla sooy bu nag dal di wax yonte yàlla Moussa ala an ta inni urid an ankihaka ihdab na taya hatayni ala an tajuri di samaniya hijjin kon foofu waxaale ni dog na foofu samaniya hijjin li ci def moom bu ko neexee def bu ko naqaree bu ko neexul bàyyi maanaam bu ko defee rek dana ko gën a neex waaye bu bu maa urid ana soqa aleyka bugguma la ko bugguma la ne fukk la ngir muy kiis ci yow maanaam waa ñaari at yi ci def daal boo mënee defal boo mënul bàyyi du ma la ci fikk woon bugguma daal tiisal la ci boo ma sàmmalee daal juróom-ñetti at may naa la ko su ko sàmmalee juróom-ñetti at kon jeex na lañu waxante woon jeex na bu Moussa nag ci boppam bëggee nag lu neex choix bu ndax yonent la te nekkoon na ci këram di jële ko lu baax mu seet boppam xam ne kat ñaari at yi def ko du ko fi wàññi dara bu ko defee mu neex sooy bu fekkee ne rek defu ko it mu xam ne mënu ko sooy bu moom tegu ko ndax waa uri daana soxaale te dafa ne ko alantaa ñu ne sama yi jin kon Moussa juróom-ñetti at yi ñoom charte la kon ci ñu may ko doom ji ñaari at yi moom Moussa bil xiyaari mooy tànn lu ko ci soob mu def ko kooku li ñuy wax taarid la taarid mooy gaaral loo xam ne bëgg nga ko waaye mënuloo koo imposer nit ki bu la ko mayee ci boppam alhamdulilah mu gën laa neex waaye bu la ko mayul it dara du ko ci fekk te itam obligé wu la ci maanaam li mu si jublu rek daal juróom-ñett at ñi daal boo ma ko sàmmalee may naa la ko boo ci tegee ñaari at itam alhamdulilah ndax man amu ku ma sàmmal mag laa ñi ne sax am na ñuy wax ne daawul woon gis li ñuy wax gumba loolu itam téere yi warante na ci ba tàyyi ndax am na ñoo xam ne boole nañ ci charte nu bu wane du gumba waaye loolu daal wóorul ndax indi nañu yàqu ba waaye yàqu ba it xam nañ ne affaire gumba boobu ñuy wax amul woon ndax bi ñuy mbuum yonte yàlla yusufa bi nga ko sànni téere yi firee way naa la naraak fii naa daifan ñu ne ay dariran yonte yàlla Shuayb ne daawul gis saxul saxul ñi ko wax dëgguñu ko ci lu wéré wéré wéré wéré waaye comme bu fekkee ne Shuayb bu bëtam nekkoon na ku ku wayxub gis itam da nga xam ne itam mag la booba mag la trop amul ku ko sàmmal bu ko Moussa mayee ñaari at dana ko neex noonu rek la ko gaaral rek foo gaaral daal loo xam ne bu la neex def bu la neex bu la neex bàyyi rek la waaye charte bi daal mooy juróom-ñetti at yi ah ah mooy ma ci tegalee juróomi at baax na ñaari at baax na waaye ko di dem boo ko defu nit waaw dana sox bu ko neexoon mën ko ne fukki at laa la koy may waaye defu ko
waaye ci moom Misra jógoon Égypte ndax fa la rey woon nit que xeet yu bokk muy banu Israël këtt yi dañ leen def istibaas dañ leen di persécuté maanaam daal dañ leen di nokkus daal di leen bott di leen botti kon de noonu Moussa ànd soxnaam rek soxna si wasin sedd bi metti amul safara amul ku ko ku réew yi fii amul ku ko sang amul dara waaye loolu yëpp teewul Moussa moo mu nekkoon ci biir dëkk bi ñu toog toog ba dara du manqué moom lay male gannaaw moom jigéen ci moom liw na suñu borom azza wa jalla feeñ ko ca jongal ba mu seen garab yi naat ci xur bi nga yëg ci montagne bi bu wàcc garab yi naat waaye garab yi mu mel ne tàkk tàkk lu foor lu am doole ci tàkk waaye lekkul benn xob lekkul benn bant lekkul dara buñ ko séeri muy inee anas naaram la aliyadik min ha jabari inni awajidu ala naari hudan inni awajidu bi shahaba bi shahaba xabasin laalakum tafsaluna maa ngi dem seeti lu leer ne xëy na dana fa jële xabaar bu wér ma loo la ma jënd fa safara bu ma ñëwee taala leen ngeen jaaru sedd bi metti na Moussa alayhi salaam di gën a sëq di gën a yéeme Moussa gëdd ba suñu borom suñu loo ko daal yi Moussa gëdd ba suñu borom ne ko innani ana allah la ilaha illa ana fa'buduni man maay sa borom amul benn buur bu dul man na nga ma jaam Moussa gëdd ba agsi suñu borom xamal ko ne ko tànn naa la ci jaam ñi bi li saarati wu bi kalaam yi yow yaay kenn ki nga xam ne yow rek laay waxal mu gannaaw moom la ci santaane yow nag tam ni itam yaa war a jaarale nit ñi yoonu jub fi Moussa taxaw bu nga taxawaloon téeméeri ponkal ñëpp sii Moussa amul dara lu soppi ci moom bu nga taxaw ñu daal di weex day jaaw Moussa taxaw waxante suñu borom tabaraka wa taala dama bëgg nga boole ma Haruna sama wala sama mag sama yaay gën si li gën a jël li gën a dëgër daal si wax li gën a moo di rakkam la ndax man sama lamiñ dafa tax te rayoon naa ko nit bu ma àndee Haruna nag mu gën ma dëgëral Moussa lu tax mu wax loolu Moussa ñu ko ko damaa yu waxee jaam muy waxante boromam lu forme ci moom ma xaw mu kawe ci moom Moussa bëgg a yàqal diggante waxtaan ak borom ñaareel bi mu ragal ragal gi mu ragal suñu borom ak façon yi feeñ yi muy koy feeñoo jaam bi di ko nattu te mu ragal bu mu ko nattoo dara manqué ci ci njàmbaaram wala ci wóoloom loolu tax mu ñaan ñu boole ko aaroone suñu borom itam ngir dëgëral xolam ngir tàmmal ko muñ ak fit ak song loo xam ne lii luy luy bare la mu sànni loo ko yet bi ngir wan ko ne itam sama kàttan fu nekk la nekk firaw na li mu lay bañ bañ li mu bari bari kàttan li mu bari bari mbooloo ak li mu soxor soxor li mu bon bon bon sama kàttan moo ko gën a jege yow mii Moussa sànni ko mu nekk jaan jaan ji gëdd ko Seydina Moussa wane gannaaw suñu borom ne ko ak li war a tax dina ko mën a laaj dina dugalal sa loxo ci sa jubab bu dugal loxoom ci jubab ci ne ko mu leer ba mel ne jant bi kenn mënul xippi mu ne ko ñaari kaw ci sa bopp yi ma la jox nga dëgërloo ko dem ci sew na loolu nag tey koo xam ne da nga fekk góor bi gën a foor ci réew mi nga dem ne ko wàcceel li nga nekk mu ne fiir la laaj Moussa amul yox yoxi amul yox li ñu ci àdduna lépp noon bu mu daaneel beneen noon taxaw Moussa bu mu labalee firaw ne ci kàttanu suñu borom yow ibnu anaq ji fi ci lenaa ngay naaw ñu aw ibnu anaq xaaruuna ak ñi ko daan wax lu ñaaw loolu le naan Moussa loolu le la ba tax suñu borom def ba muy sangu ja dex ga bi mu suñu yére yëpp ba doon ko tegoon bu ma sangoo gën ci yéen ba koo xam ci sorom dañoo daw ñu topp dañu ba di ko dóor naan ko taxawal ngir banu Israaïla ak ci ñi nga xam ne ñoo ko di am loolu la ñu xool ko xam ne loolu la amul ci moom. nee na fi ñu ko yëgee si ulul asmi mooy ki nga xam ne Firaaw na topp na ko ci bi ñu xonqalee buntu kër yi ñu ànd ak Firaaw na te ñu waroon a ñëw rey ñu ànd ak Moussa ñu wal ba di xonq xonq bi séddale ko bunt kër yi ñee tey ñëw rey na leen ba noppi wa inna wa naa la xaajuna wa inna ilayhi rajiuna te rek firaw na jóg na bis li ren Moussa ñi mu àndal yëpp di leen topp di leen topp bañ ak si al bahrul ahmar mer wi firaw na wër leen gaaw ci seen gannaaw mënu ñoo dellu gannaaw mënu ñoo jëm ci kanam ndax jiri jàng bi ñu ne fa notre jamaa par ashaabu Moussa inna la mudrakuna ñu ne ñi daal jot nañ ba noppi Moussa ne kàlla indi maa ngi rabbi si yëf yi ni mu wóoloo yàlla ak ngëm gi mu am dëgër gi mu am ba ñun ñëpp yox yox yi ne gaa ñoo jàpp mu ne kàlla indi maa ngi rabbi si yëf yi suñu borom a ngi ànd ak man te dana ma jaarale yoon. te xamagul lu siy xew waaye wóolu na rek yàlla diggante boobu dañ koy yëgale ci ulul asmi suñu borom soog ko diggante ko dóore géej gi mu dóor mu kii def yoon yooyu la.
alxaqiqatu muhammadiya waaw kañ alxaqiqatu muhammadiya nga xam ne lu jóge ci ridaul kibriya benn mbindeef benn malaaka benn yonent mënu koo attan lu ca toll ne bën bën pusa buñ la ko tegee nga seey ndax gis ngeen ne yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne mu ngi ñaan suñu borom na ko gis dama la bëgg a gis may ma ma gis la gis boobu diggante boobu nan la demee buñ la setalee wala yëngu bi ba mu wàcc ci yow doo mën a nekk ndax sax bu dee ko dégg sax bu dee ko dégg feral ko mu rey doo dégg sax ba ndax bal bi moo gën a gaaw taw bi baat bi maanaam son bi waxtu yoo xam ne bal bi lu muy gaaw accès ci yow dana fekk yëngu bi nga xam ne buñ sàkkee képp yooyu balay accès ci sa nopp fekk na bal ba bal la nga dee loolu bu la ko xam dara sori la nga fekkal ko da nga seen ñu daanu lu yàgg boo ko solee doo ko dégg bal bi kon ndax rab yi ñu fekkal ndax gis na bal bi nga nekk ci ko Moussa kon foofu buñ buñ déggee foofu Moussa gisul suñu borom sa gisu ko kon bu mu ngi suñu borom bu su bu Moussa lam gis suñu borom bu mu ko gisee dafa jeex suñu borom ba xamatul dara ana amatu ana mi am dem maanaam ñaar ñu ko suñu borom ak Moussa amatu suñu borom xamal ko ne ko attanoo gis ma ndax montagne bi moo la gën a dëgër te attanul gis ma booba daf koy wan rek ne ko lu gis la nee ñu lu toll ne bën bënu pusa la ñu xotti ci kiiraayu ñaareel bi ndoj wa mokk ba def pëndëx Moussa xëm xam ngeen ne xëy ji suñu borom yi tabaraka wa taala kenn ku ci nekk suñu borom daf lay may di la xajal di la xajal ba nga àgg foo xam ne dana ne la yemal fii gis nañ ne ñoom ñëpp ku dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na fu la suñu borom jàjjee jàjjee suñu borom googu benn mu nattu la wala mu xañ la la nga koy laaj wala mu doxale beneen kiiraay sa diggante moom mooy bi ci yées wala mu yedd la mooy bi ci gën a woyof ci yam ci yàlla Moussa noonu la ko suñu borom yedde moo di mbugal moomu leen maanaam xotti ci kiiraay li day na bën bu ñu tusal mu xëlloo Moussa mokkal daj mu taxawoon ba ximmi kon wanu ko la mu doon laaj ba noppi te fitnaal na ko noox bi mu ne rabbi innam nii min ahlika wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimina moom itam suñu borom daf koo jajji xupp ko fala tasaala nii maa laysa laka bi ilmi inni aizuka an takuna min aljahilina mu dal di tuub delluwaat ci boromam naka noonu itam ibrahima bi mu ne rabbi arini kayfa tuhil mawta moom nag laaj na loo xam ne moom dong ci mbindeef yàlla bind képp yonent yeeg malaayika yeeg wàllu yëpp moom dong ko ma sa ñeme suñu borom wan ma secret bi ngay dekkale way deeñ
waaw mu ne Moussa loolu la ko mën a naka la ko mën a waaw yéen sëñ Moussa alayhi salaatu wasalaam tey dañuy wax ne pour ragaloon dee la pour ragaloon la ragal dee am na sax ci bindkat yi ak jàngkat yi wax naan Moussa ko ragaloon la déedéet dañu xam ndax ñu ngi ne naan Moussa dafa ragaloon ci bu ko suñu borom ne sànni yet yi la amee mu sànni ko mu nekk jaan jaan bi gëdd ko mu daw ah bi nga xam ne suñu borom ñu ko yónni ci feraw na te mu xaw a ragal ne rayoon naa ko bakkan te dama ragal bu ma demee ci ba boole ma ak aaruna ndax man sama lamiñ setul ndax xal xal xal safara yu mu saxoon ba mu lakk lamiñam tax lamiñam setul mu ne xëy na duñu xam bu baax lu may li may wax ñu boole ma ak aaruna ñu mel noonu la kooku dëgg ba ne Moussa ko ragaloon déedéet Moussa ku ñeme woon la dafa xamoon yàlla nag xam ngoo xam ne xam ne suñu borom dana la nattu toog la si biir jaarale ci leneen te fekk mbirum suñu borom la loolu nag xam bu mu xam yàlla moo tax bu nga xamee ne sànni na yàq yi mu nekk jaan wut si ko dawul ngir jaan bi dafa xam ne jig suñu borom la taat na ma xamul lu mu ci namu ci moom te war naa wane ak wan woon ngóor suñu borom ak fit mu dal ak ñene muy taxaw di ko dégg dafa war war suñu borom ne jaan bu siwul bu ragal bu ñàkk solo laa bu dul yow aw ma kàttan aw ma fit aw ma mën-mën aw ma xam-xam moo tax mu dal loolu la ci bulóoy bi nga xam ne nekk Moussa dafa ragal woon nag dee bu ñu ñaanee suñu borom ñaan ma bañ a dee mu ne ko loolu mënul nekk bu ñu ko ñaanee ko mu gudd mu ne ko da ngay fekk yëpp kuy xam nga xista yooyu am na ci yoo xam ne israiliyaat la am na ci yoo xam ne yu dëgg la am na ci yoo xam ne ay hadis la nga dikk ci yëpp kuy nga teg sa ñaari loxo ci wetu genn bi nga puus ba ci bopp bi karaw bi sa loxo laal nga dund ko mu xeeb ko bi nga xamee ne su xeeb na ko ndax suñu borom nangul loolu mu dund loolu ak ba mu ko njëkkoon a appel bi nga xam ne dafa taxaw na foofu ak ba jot suñu borom jot malak mu bi mu ñëwee yonent yàlla Insa mbéj ko mu daw nit ku soxal la nit ku tal la dégg te day fab nuur mu buwoo bi te mu buwoo moo ëpp malak yi doole doxale ko seen diggal moom dal leen di mën a ngàdd bu ñu ko taatee suñu borom yéen leen nax leen ko ñu dem ci gas bàmmeel boo xam ne ba mu nekk ci xeetu rafet lañ ca def yonte yàlla Moussa romb daal di ñëwee ki moom bàmmeel mu ne waaw ana ku moom bàmmeel bi ñoo ci daal xej bi suñu borom fonk la
mu ne ka xam nga barkeel ci ndax mën naa koo nag nu mu toll ñu ne ko moo yoo toll ak mën naa koo nag ñu ne ko waaw naka mu jëtte bisum borom roc ci réew mi ma laay day roc ci réew mi desul
am gis Moussa gis ne ko ci bi bani Israël ba mu ñu mën a ana aalam nas suñu borom na ko ko tëj waaw dafa moom daje si na xadis ñetti jëf la jëf ñetti sabab la jëf jooju am ñu dafa am ak suñu borom junniy jotaay bu ci nekk suñu borom xamal ko ci junniy xam-xam bu jàpp ne kenn ku mel ne moom amul ci suuf si muy xutba di laaj laaj leen ma li nekk diggante asamaan ak suuf lu ngeen ma laaj ma xamal leen ko mu yàgg ñu laaj ko lu mu xamul mu jaaxle bu mu dikkee ne suñu borom ana ko gën a xam ci nit ñi xam naa ne du man ndax am na lu ma xamul mu ne ko soo bëggee yokk xam-xam mu ne waaw daf ne ko ki gën a xam mooy ki nga xam ne fu mu toll mu ngi yokk xam mu ngi mu ngi yokk xam-xam boo bëggee nag am xam-xam boo xamul woon te man si maj ma ul baax dañu dama fekk se- sama benn jaam boo xam ne booba demee mu xamal la ci la mu xam mu ne ko ku ma koy wan mu ne ko li ngay def yóbbal moo la koy wan mu demee ci kër ga mu woo Yuusa benn xale la benn booyam daal kooku yu yonante la kooku waaw Yuusa yonteel Yuusa ne ko wutal ma yóbbal dama am tukki bu sori may dem kooku dem jënd benn jën daal di koy fiir def ko ci pañe nàbb ko daal Moussa yee ko ci njël ñu dem di dem di dem di dem di dem di dem ba jant bi toll fii ñu demoon nag ci yéeg ci benn daj boo xam ne mu ngi tiim benn géej géej gi mu ngi baawaan duus yi taw ba mu yàgg Seydina Moussa nelaw alayhi salaatu wasalaam Yuusu di xoole ba gis benn duus bu dal ci doj wi fettax ay ndox dal ci jën wi firiroon jën wi dal di mëj mëj mëj dal di nii rek pañe bi këpp mu dal dugg ci ndox mi dem ñu jël ñu kii waaw yonent yàlla Yuusufa di xool ba gis loolu toog ba mu yàgg moom it mu nelaw yonent yàlla Muusaa moom njëkk a yeewu jógal jógal jógal njëkk dal ni noonu mu ko gaawantoo rek mu dal di jóg moom it ñuy dem fàtte na affaire bi ñu dem ba sori mu ne ko i indi indi suñu yóbbal bi ñu lekk man xiif naa trop mu ne ko yii si nga doj woon tëddoon di nelaw fa laa ko fàtte ñu war a dellu farta daa ala asaarihima xasasan bi ñu demee nag bu dikk nag benn doj wi lañu tëddoon gis nga pañe baa ngi nii jën wi dugg na ci biir ndox mi yonent Yàlla Musaa xool gis jën wi mu daal di wopp mbubbam dugg dem ba jege jën yi beneen yi mën a saraf dem mu dikkati di yor ba ak si beneen ko nii mën a saraf dem di ko topp ba seen benn nit bu taxaw mu laal di jubal nit ki bi mu dikkee ne ko assalaamu aleyka yaa abdallah nit ki ne ko wa aleyka salaam yaa nabiyallah mu ne ko ah waaw li nga xamal ne nabiyullahi laa mu ne ko ah loolu day dara xanaa li ma xam a ëpp loolu mu ne ah kon waaye ji li ma suñu borom di wax noonu la amee waaye lu mu tas tatee ma ay sabran yonente bi salaa sallam nee na bu amee benn bis bu ma war a fekkee bu ma nar a fekkee te du ma ca dolli ko xam-xam yàlla bu ma ko fekkee